Heavy Mess.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 mën a baayam bii di woo ci turu Anjaay ne su bàyyiwul xale yu jigéen yi liggéeye ci kër gi muy rasaatu dana ko faat ëskay ba tax menace yooyu mu def ci baayam tax na ba baayam yóbbu ko ci yoon ba ñu mujj ko teg loxo di koy mandat de dépôt waaye sa waay ak teg loxo googu ñu ko teg loxo ba mandaa de dépôt ko taxul mu bàyyi ndax ci biir prison bi mu nekk doom ji lijjanti na portable ba vocal baay bi dal di koy menacé waat wéyalaat tuuma yi mu tegoon ci kawam <laughs> waaye kii dooma moo taxit avocat baay bi ci kanamu yoon dëgg dëgg doom ji sonal na baayam lu toll ci ñeenti at mu ngi nii mayul baay bi jàmm mayu ko salaam dëkkee ko fitna la terrorisé ne toj na fi oto baay bi ñu naan deetawaay baay bi lijjanti juróom-ñetti million jox ko ngir mu dem Canada sa waay ne tungaañ xaalis bi dal di daw waay ma ne doom joo yarul baaxul moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw corona laa wax alintin nag ma ngay alerté ca xew ca rëbës ndax prison boobu ñëpp xam nañu condition yi difficile yi fa détenu yi nekkee alintin nee na prison bi fees na ba jéggi dayoo détenu yi dañ di pak bokkate ñuy nekk ci nekkin wu doy ne rax ci dolli ak réchauffement climatique bi tàngoor wi nekk ci biir prison bi jéggi na dayoo fi mu nii daal googu tàngoor nit mënu koo dund rax ci dolli ne ak tàngoor googu yépp saa ne ndox dafay manqué ma ne alintin mooy wax de ne fi muy waxee nii rëbës googu feebaru gaal ñu naan ko wagg ma nga fa ne gadd di fa law moo taxit ne mu ngi ñaan ñu libéré détenu politique yi nga xam ni ci ay manifestation lañ leen tegee loxo ak ñi ñu jot ne defuñu dara te mën a présenté garantie de représentation alinti nee na lu toll ci junni ak lu topp ci ay détenu yoo xam ne ci ay manifestation ak ci ay rap la leen tegee loxo ñoo feesal kaso bi ba mu fees del te nag ne pompe à retardement la moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Kolda romb na doy war ab waay ju ñu rapatrié ca bitim réew nee ñu waa ji xel mi matul moom daal moo fa jàpp baayam dóor ko ay kuur dëbb ko ba baayam jaare fa ñàkk bakkanam ñu naan deetawaay waa ji daw songu yaa ji dóor ko ay kuur ba fi mu tol nii ma ca diggante dund ak dee sa waay nag teg nañ ko loxo <laughs> ma ne réew mi de ne fi am waaye bitim réew dafa metti de te ña nekk la ñuy dund dafa metti trop jële la bitim réew indi la fii ci condition yoo xam ne doy na war waaye nag rey sa bàyyi jéggi na dayo mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz